maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu suñu gan yi son excellence monsieur ba ñu ngi lay nuyu waaw di nuyu madame l'ambassadeur ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu président association yi du nuyu njiitu daayira yépp daayira murid yi fii seen représentant di sëriñ Yankooba Gaye di ci teg euh, njiitu daayira tiijaan yi di Mouhamadou Ba di nuyu sénégalais yi fi toog yépp du nuyu sama mbokki jigéen ñi nga xam ne tey jii su ma toogee fii ñoom laa fi toogal ki nga xamante ni mooy sunu mag di Adja Sofi Thiam ak ñi ci gannaawam ñépp di nuyu tamit sunu présidente de passage dafa dem voyage muy Bercy Ndiaye waa ñun nag sunu li nga xamante ni moom la ñuy jooytu xanaa dañ ci ñëwaat rek mais wax ngeen lépp mooy ku ñu jàppale ndax kenn ku ne xam na ni jigéen bu jógee Sénégal dem beneen dëkk dafa wuti doole ndax jigéen dafa néew doole te fim mu ne nii dëkk bi metti na metti goo xamante ni sama mbokki jigéen yi yépp nga gis tey jii ñu toog bëccëg boo génnoon ci biti ba gis leen li ñuy daj dëgg leen yërëm li xale góor yi di liggéeyee noonu nañuy liggéey te jigéen amul doole seen marchandise yi nañuy jël di ko def ci mbuus yu ñuul di daw police yi di leen dàq te mënuñoo dellu fi nga xamante ne ne moom nañu jóge parce que ñooñu ñun nañu yaakaar moo tax tukki nattu la waaye tukki tamit destin la parce que yàlla moo tuddoon fii xay na suñu lool te booleeg dañuy yor suñuy doom da gis ñoo xam ne dañuy boot seen doom yor mbuus yu ñuul yooyu di daw ñu leen di dàq léeg-léeg saa ñu fekk leen ca fa ñu dëkk jël seeni bagaas sunu association bi nga xamante ni nag moom nañu formé macha allah ñu ngi def liggéey yu baax parce que ku ñu jàpp sa bagage dinañ fexe ba booloo jàppale la nga jugaat kuy dem Sénégal danañu boole jàppale la boo demee di nga am loo dimbalee say mbokk ndax coono bi ñuy sonn fii mënoo koo wax waa Sénégal sax ba ñu këm ko pour pour ñoom toujours rek yaa ngi lu dul jeex. léeg-léeg saay nit dina làqatu ci néegam jooy nit ñi sax jaratul ma leen di wax leen ndax loo leen wax lu ne pour ñoom yaa leen man yor nga lu nekk pour man leen a jàppale kon ñun ñun coon ñun ñun ñun ñun sonn nañ ñun jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci extérieur bi kon ku ñu jàppale rek dinañ jël parce que dañu néew doole bi ci des mooy affaire habitat yi wax nga ko ndax fii kenn ku nekk boo amul fanweeri at am nga ñeent fukki at mbaa juróom fukki at te ñaanuñu yàlla nag màggete fii dañoo ñaan yàlla dellu suñu réew kon bëgg nañ financement yi nga xamante ni moom la ñuy dégg ni ñu ngi koy financé les sénégalais de l'extérieur bëgg nañ ci financement yooyu nga xamante ni tey bëgg nañ ngeen wax nu nan nañuy def tamit ak ban yoon nañuy aw bëgg nañu ngeen wax nan nañuy def ak ban yoon nañuy aw nga xamante ni euh, projet yooyu nga xamante ni moom nañu bind du am benn erreur euh, madame l'ambassadeur bëgg nañ tamit nga jox ñu sa email ba nga xamante ni tamit bu ñu bindee suñuy projet mbaa ñu ki dinañ mën di jokkook yow noo xamante ni jokkoo boo xamante ni direct lay doon bi ci des mooy affaire papier yi dangay yor sa njaboot Sénégal sax bëgg koo indi fii dangay am problème parce que Nigéria dafa sori te bu dee xale la du fa mën a dem bu dee sa jëkkër dafa wéradi du fa mën a dem te ñu ñaan yàlla ngeen jàppaluñ ci ba ñu am ambassade mbaa tamit mbaa ku ñu ku représenté fii boo xamante ni du ñu sonn suñu dee lijjanti kayit dinañ jub jubali fa mais li ñuy daj ci këyit dafa metti man damay dem ba mujj gi sax dama naan ah man daal damaa tàyyee sax tramité te pour temps li ngay li ngay tàyyee sax sa njëriñ la waaye pour pour collecture daal ñun daal suñu sunu suñu suñu jàngoro daal mooy ku ñu jàppale soxla nañ ko jigéen ñi sonn nañ sonn nañ ba fa sonn yam fu ñu la ko wax tamit paase na fa waaw jigéenu sénégalais nag moo doon jigéen boo xamante ni dafa am sag dafa am sag lu xew lu nekk tey jii bu sañsee ba toog nga ne kii yor lu jeex fekk na booba bu xëyee la muy daj moog yàlla rek ko xam man mii di wax ak yow boo ma ko yoon fekk suba ba ma sol sama tubéy ba ma sama lii da nga naa duma ba sama <laughs> waaw léegi daal moom daal loolu daal bëgg nañ ngeen jàppale ci ñun sonn nañu torop nag sonn nañ torop bëgg nañ daal moom ngeen ngeen ngeen jàppale ñu ba nga xamante ni dinañu tey jii buñ ñu tey jii buñ ñu financé woon mën nañu am ci galerie yi kenn ku nekk boo amee deux mètres mbaa un mètre cinquante sax nga toog fa nappa soo yaram waaye xam nga ni topp ci mbedd Argentine yi di daw rek yor sa mbuus loolu metti na ah tàccu leen tàccu leen li ñuy daj dafa metti li ñuy daj dafa metti yàlla moo def argentin yërëm jigéenu sénégalais mais buñ ñu yërëmul woon fan lañ jëm fan lañ jëm hmm? dañ lay yërëm di jënd ak yow man nii di wax ak yow su ma bëggee tey sama njaay kii damay gàddu sama doom ya toog ak ñoom ndax ñu jënd ko mu mu gaaw kay kon bu ñu jàppalee ba ñu am ci galerie yaay yi fi am hmm? bu ñu amee ci galerie yi kenn ku nekk bu ñu la daggalee un mètre mbaa un mètre cinquante mbaa deux mètres ñu toog fa nox fa suñu yaram yii loolu tamit bu ñu ko amoon financement yi tey ji mën nañu dem sax ba nga xamante ni moom nañu financé ñu dem ñun ba am fi suñu galerie yaa bopp du du du yomb nag mais mën nañu dem tey ji ba am fi suñu galerie yaa bopp yoo xamante ni buñ fi ñëwee tamit suñuy sët ak suñuy waaw man sama wax moom du ci gudd lool rek laa ne woon naa ko wax maa ngi leen di jéggalu nag di leen baalu ak asalaamaaleykum wa rahmatulah